xew-xewu jamono fi Sénégal toll dañoo seetlu ni démocratie moom mu ngi dellu ginnaaw bu baax a baax a baax ak ak yelleef doomu adama mi ngi dellu ginnaaw si réew mii di Sénégal ñuy wax pour jàmm mën a dellu si nit ñi mën a doon benn ñi nga wax kii ñi nga xam ne yoon dafa leen teg loxo si wàllum politique muy les détenus politiques ñu mën leen a bàyyi si nu mu gën a gaawee. Afrique sowu jant buñ demee ca Niger ñi nga wax waa CEDEAO ak sunu président ñiy jiite Afrique ka jàmm moo gën ay ndax mënuñoo dajale suñuy armée jël suñuy koom dem di xeex suñuy frère suñuy mbokk africain di waa Niger donc nañ si bàyyi xel te tegal lépp suuf te waxtaanee ko moo gën ñu war a indi jëye si Afrique sowu jant ñu ngi feddali suñu kóllëre ak suñu wóolute si suñu peuple frère ñii di waa Mali ak Burkina Faso ndax tànk yi ñu jël yoon yi ñu jël mooy yoonu moom seen bopp yoonu moom seen koom yoonu tabax seen réew am développement ñu ngi leen seen jaajëfal te ñaan Afrique ñëpp fekk si leen si.